am ci nag benn gone soo xam ni ab taalibe lay woote waaye ñu gis ni nag da doon génn ci réseaux sociaux yi ndax ku siiw la laataa loolu doon naqarlu noonu nga xam ni noon la noonu la mbir ma demee ndax ab taalibe sëriñ war naa joxe ndigal mu génn ci internet bi di ko nag di ko kaas. Touba avant tout. Mhm. Touba titre foncier mhm. titre foncier mhm. titre foncier borom sañ na fa mu ak dëkk yi yemul ak Tivaouane yemul ak feneen. Mhm. yemul ak benn dëkk Touba titre foncier la. Mhm. titre foncier kër yi am na ñoo am seen kër titre foncier mhm. sa kër bu amee bu nekkee titre foncier nga dëkk koo xam ne këram titre foncier. négal ba toj jot. bu jotee que këram nekkul titre foncier la ñuy toj. waaw yow bala ñoo laal sa dara danañ waxtaan yow soo nangoo baax boo nangul ñu bàyyi. parce que la ko def titre foncier tax. kon nag bu nee da am sëriñ. nga ñëw ci dëkkam. dëkk ba ñu ne dañuy defaraat mm-hmm. waay waay waay waay waay defaraat yow nga toog fële mm-hmm. di wax lu la neex ak lu la naqari bañ jàppale ci mm-hmm. def la ci lañ lay def nga wax ci la nga cee wax loolu amul njëriñ ti Touba da titre foncier ci sëñ Mountakha jërëjëf sëñ Mountakha parce que euh, li xew tremblement de terre boobu na cent millions la joxe parce que noonu la ñuy walloo nit coow yi jaru ko xul yi jaru ko ni ci grand place yi jaru ko seetal la nga man da def ko sëñ taxa moo yëkkati cent million jox leen ki ne damay defar bàyyi ko mu defar waaye bul ne woy man amoon naa fi place eh, sama place ñu di ko toj c'est pas normal c'est pas normal mooy lan su fa génne woon ñëpp ñu génn ah dañ fa moo fay sëñ Touba di moo fay Serigne Touba su ko neexoon nee na ngeen leen waa léegi nag loolu la kon abal leen ma marché bi lu def dañu génn parce que duñu duñu revendiquer da xam kii mooy kan yow gan nga kum mën a doon foofa gan la fa dëkku fa ka moom dëkk ba mooy sëñ Touba sëñ Touba mooy sëñ Muntaxa jeex na kon nañ déglu rek waaye sa sëriñ wax nga diingat ko weddi ko ah loolu lépp boo dee sëriñ boo nga ah, taalibe bu taq suuf nga taalibe bu taq suuf nga mbokki Baye Fall yi nag bi mu defee loolu dañ ko doon dóor ba yàq ci ab Euh, waruwaayam ndax it loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon li koy lijjanti. waaw gannaaw solution bi loolu la kay jeex na sollicité nañ ko jeex na kay waaw <laughs> ah, looloo koy lijjanti lijjanti ko na. Mm. ah parce que sëñ Mountakha li man mooy joxe ndigal. Mm. su joxe ndigal du ca toppaat di mm. leen naan déedéet joxe na ndigal jeex na. da ca des bi bàyyi faal yee koy réglé. waaw moom daal. wartoon a def noonu. waaw ah, taalibe daal du diingat sëriñam. du ko diingat. waaw su dee lu nek deug ngasak nga sax nga sax ci deug li yalla mom ak li serigne bi mom du ben serigne bi mom deuk ba cantine am na ñu ñu dégage dégaa si ñi mëna gis dañ dégage si ñii jaay waye bul bul sét sa intérêt yow nga ne ngay def da ngay sét li intérêt mbolo mi nga bayyi lool mu dox kii bu baax baax di la euh, di rafetlu itam ci dara bi ñu dara. question bi ñu am mooy jamono ji lu ko ne xam ne ak politique bi fu mu toll. Hmm. temps yii ci gën a xam ne kenn ku fi génnoon ku ñaan ngañ jëm a ture. bokk ci li nga xamante ni mooy coalition euh, bi nga xamante ni mooy Pastef. bokk ci foofu temps yii dafa génnoon defoon benn vidéo mooy lan dafa wax ne ci biir xeex bi nga xam ne ñu Ousmane Sonko ñu ngi koy xeex pour fal Ousmane Sonko nekk président loolu parti la fa mais li ñu bëgg dutu jam morom mo nitam mais ci wax bi dafa utiliser li nga xamanteni moy batu da'wa ndax baatu daawa bo waroon ko utiliser fofu mu waxe ba nit ñi am ño xamanteni ñi am na ci beneen dégg-dégg ne nañ am ñu am fiñ fenn côté daal ci bëgg féetee da'wa odo ila sabili rabbi bil hikmati wal maw'izatil hasana mhm. alquran mhm. la qur'an la mhm. qur'an ci nga nit ku jangul nit ku da fay bari problème bo jangé do bari problème yàlla ko uddoo ila sabili rabbika woote leen jëmi ci sama yoon wi waaye bil hikmati wa maw'izatil hasana jeex na loolu loolu kenn du ko wéddi bu fekkee ne mu ngi ci daawa bëgg président tax mu bàyyi daawa gi ak li nit ñi wax du doon président na doon li mu doon lu lu xew yàlla mooy fali nit nit bu doon fal dafa nga ne coow li dana bari nit bu doon fal fal boppam mu coow li jeex wala mu fal mbokkam coow li jeex koo fi gis am na doom ju liggéeyul am na mbokk mu liggéeyul woo ne ba tey pour ñu wutal ko place manta am place ba fii ma toog amul place kooku bu ne la dama lay ñaan nga nekk président day wax rek daawa du ci ne Seydi Hadji Malick daf daawa la doon def Sëñ Tuubaa torop torop waaye mujj na neex daawa mooy nag daaw mooy da ngay woote jëm ci yàlla am na ñu nangu topp la am na ñu lànk ba pare bëgg caa boole xeex ak yow voilà. li ma si jaaxal mooy ba moom li mu wax mooy jëlee nit ñi ci jaamu nit yóbbu leen ci jaamu yàlla léegi yow naka nga mën a comprendre euh, ma euh, teqale ñaar yi mooy bu ne nañ jëlee nit yóbbu ci jaamu nit yóbbu ci jaamu yàlla yow boo tegee jaamu yàlla rek da ngay gis ne yow leneen nga fay teg mooy yéefee boo xoolee boo tegee loolu rek leneen nga fay teg foofu moom ban jàng nga ci jaamu nit yàllaa ko njëkk a tere yàlla nee na bàyyi nit ñi da ngeen jaamu ma jaamu leen yàlla yàlla la ñuy jaamu nit kenn du ko jaamu da koy def nawle ngeen bokk yàlla waaye doo ko jaamu pour lan ngay jaamu nit pour lan ngay jaamu nit ku fekk nit muy jaamu nit loo koy wax nit kuy jaamu morom ma ah di kër ci kër ci kër kër lu ne nga di ko def déedéet jaamu leen yàlla sëriñ bi da nga nekk ak moom yaa koy defal lu ne waaye bu julli jotee bu julli sëriñ bi da nga nekk moom yaa koy defal lu ne bu woor jotee nga woor yaa koy defal lu ne waañ màkk jotee nga dem loolu jot li li à part li à mhm. waaye nag buñ ko jaxase mhm. jaamu nit jaaduwul parce que nit mënul dara léegoo mhm. li ma la wax sànq war na ku ñuy jaamu du am wanag mhm. ku ñuy jaamu du am yàlla rek la ñuy jaamu yàlla du am wanag man man nii man may nit xale bii ma nekkal di saani di ma jaamu te bis bu ne ma dem ci wanag bis bu ne ma def leneen ci kanamam ak ak ak yeneen ak yeneen waaw kon kay war naa toog na ba mu yàgg mu ni man maa yambare li nga man nii damaa yambare waaye kii du ma ko ji waruma koo jaamu maa bëgg lu yomb rek nit kenn du ko jaamu yàlla lañuy ñuy jaamu

man ak Habib bu sëñ Mansour ak Moustapha bu sëñ Abdou